Abdoulaye Diallo député à l'Assemblée nationale tey gis ngeen situation bi nga xamante ni moo ci réew mi démb ñu jàpp Ousmane Sonko tey mu ngi nekk tribunal juge d'instruction bi war ko déglu yow d'abord en tant que député membre euh, de PASTEF lan mooy sa réaction bu njëkk. waaw di wax rek ne lii xew ci réew mi teguñu ko fenn na jàpp lenn mooy li xew mooy ab état bu taxaw temm ne moom. mooy choisir kan mooy nekk candidat ci réew mi ak ku dul nekk candidat ci réew mi état bu taxaw boo xam ne mu ne ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko nga xam ne ñëpp moom lañ def seen xol tey jii bu ñu organisé ko élection tey tey tey tey Ousmane Sonko da koy gañ kooku lañ nekk ne du wax ne du nekk président de la République du Sénégal il faut résumer situation bi ci lii sénégalais yi nag ñoom ñoo demoon ñu wax leen ñu jukki ñu jox leen suñu projet wax ak ñoom ne leen ñii lañ bëgg a téye réew mi wax dëgg yàlla sénégalais yëpp nangul ko loolu wër na. ndax combat yi ànd di ko xeex yëpp sénégalais yi taxawuñ nañ ci jàppale nañ ci léegi nag tey jii ñu ngi doon ñëw def suñ point de presse pour préparer ak sortie procureur bi pour que ñun aussi ñu am ci ay ay leeral ak i waxtaan ak askan bi loolu la tey jii jaay doole gendarmerie ñëw tere ñu ko nañ suñ chaise ba du amuñ sax droit taxaw ci bunt bi te ñun ñu ne kat parti lañ politique boo xam ne dafa am récépissé te ministre de l'intérieur nangul ko maanaam état ko ñoom tey jii ñoom ñoo jalgati république kon ñoom ñoo xamul état parce que damay dégg ñu naan ñun suñu ay fossoyeurs de la république lañ xamuñu état dañuy dañuy respecté wuñu institution yi waaye dañ xam ne opposition institution la opposition institution la constitution moo ko nangu kon tey jii ñoom ñooy jalgati yoon fii loolu nag sénégalais yaa ngi seetaan loolu man en tan que député bi nga xam ne damaa war a saytu loi dama war a contrôler dama war a évaluer lii maa ngi wax sénégalais yi jaaduwul teguñ ko ci yoon te sénégalais yi nag ñoom ñi nga sénégalais yi ñoom ñoo conféré si seen i seen seen pouvoir ne ñoo ngi koy dënk état ñoo ngi koy dénk nit ñooñu ñoo war a nag tey ji taxaw temm ci lii nga xam ne rafetalul tey xar ko kanam Sénégal démocratie bu dellu ginnaaw lañ am jalgati état de droit moom moo am te suñuy maamaati maam dañoo xeexoon ba vraiment ñu am luñ fi sam loolu nag ñu ñëpp tey ji ñoo ci waroon ànd tey ji sàmm ko waaye dañoo gis ne Macky Sall ak ñi mu àndal ñoom dañ ko nekk di ko jalgati loolu mënu ma ko xam on peut pas le savoir on peut pas le savoir mënuñu ko xam lu ñu am mooy mooy mooy sorti procureur sorti ci sorti procureur boobu lañ lañ lañ sukkandi woon pour ñu aussi tam indi suñu élément de réponse procureur génn jël sept chef d'inculpation teg ko Ousmane Sonko ne li xew mu waaye yow moo tax ma ne la fi fi ñu nekkoon démb ak barki démb foofu lañ nekk ba tey mooy maanaam le potentiel candidat le futur président de la République du Sénégal moom lañ ne du fi du fi du fi nekkee du fi nekkee dara moom lañ bëgg mu nekk candidat te sénégalais yi moom lañu choisir wax ji wax ci foofu la ne waaye sénégalais yi defuñu ñun lu ñu gis c'est du déjà vu moom dafa mel ni rediffusion la nekkoon di def rediffusion mooy maanaam li nga xam ne ñun sénégalais yi gis nañ ko gisatu ko parce que tey sénégalais yi ñoo téyal seen bopp Ousmane Sonko sénégalais yi ñoo bàyyi xel Ousmane Sonko amul discours bu mu def te sénégalais yi xamuñ ci dara bu jëlaatee discours yooyu teg ko ci kanam ne lii ñii mu wax. moom moo tax ñu ne tey dafa dafa dafa def appel à l'insurrection caaxaan la caaxaan la xanaa kon man terroriste la xanaa man terroriste la kon man mii terroriste la man sénégalais bi nga xam ne man ci keppaaru état Sénégal laa yaroo man mi nga xam ne carte d'identité nationale Sénégal laa yor fii ci Sénégal kon man xanaa tam terroriste la te jàngee ci école yi ñu yoree ma ci école yi may lekk bu nga li ñuy béyee ci réew mi mënumaa dem fenn xaw ma fenn fu du Sénégal yor di yar sama njaboot fii tekkee fii kon xanaa kon man terroriste la. c'est quoi le loolu mu ngi suñu kanam ça n'appartient pas à Pastef de dire que lii mooy plan d'action bi sénégalais yi ñoom ñooy choisir sénégalais yi ñooy tànn sénégalais yi ñoo xam ku war a falu ak ku warul falu kii toog fii tey le président Macky Sall sénégalais yi ñoo ko tànnan ci anam yu rafet kon sénégalais lañ may war a may aussi tam ñu tànnaat seen futur président ci anam yu rafet te ñoom seen président dañ ko tànn avant l'heure c'est le président Ousmane Sonko. loolu lañ bëgg Sénégalais yëpp xam ko loolu lañ bëgg képp koo xam ne tey jii yaa ngi observé di suivre di suivre l'actualité Sénégal nga xam ne lii lii lii lii nii taxaw tem moo am Ousmane Sonko la ñuy jaay doole fii salfaañe ay salfaañe ay droit am salfaañe droit parti am mooy Pastef pour teg teg ko ci loo xam ne seen yëfu bopp kese la loolu nag duñ ko nangu. merci beaucoup ñu dégg aussi quelques informations ñu naan Ousmane Sonko juge d'instruction bi da koy déglu dóor ko mandat de dépôt yenn responsable yi Pastef est-ce que loolu da koy dëggal wala. mënu ma ko dëggal parce que boobu ba tey ñu ngi toogoon di préparer point de presse bi li ci munti am c'est aux Sénégalais c'est aux Sénégalais vraiment de prendre leur responsabilité par rapport à leur destinée par rapport à l'avenir de ce pays waratuñu nangu fii ci Sénégal. jaay doole waratul am état de droit ma ne la dañ ko war a respecté démocratie bi nga xam ne dañu ko sampal boobu ba dañ ko war a respecté constitution bi lu mu jukki ci képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Sénégal dañ ko war a respecté constitution bi moo wax ne on a le droit de s'opposer on a le droit d'avoir un parti politique ñun nag suñu opposition boobu ba tey sénégalais yi moom ñu gis mu neex leen ñu choisir ko moo tax. ils sont maintenant pour terminer tere nañ leen ngeen def conférence de presse jàpp nañ seen leader quelle la suite du parce que sénégalais yi je sais que dinañ jël seen i responsabilité là dessus loolu rek laa amoon lu ma ci wax. jaay doole gendarmerie moo ñu fekk su ñu nekk mhm. ñu assiégé siège bi ne fi defee point de presse bi mhm. évacué Sénégal jaay doole googu moo war a dàkk mhm. suñu buggee am Sénégal boo xam ne Sénégal gu rafet la ëllëg Sénégal boo xam ne ñun suñu doom yi bu ñu ñëwee la génération future dina ci mën a vraiment fekkee ci loo dina nekk ci jàmm. wala dina fekkee loo xam ne lu koy njëriñ la ñun ñoo war a seetaat suñu bopp lii nii jëmalu ab réew kanam fitna dong la yokk réew mi parce que xam nga ne bu vouloir éliminer le candidat potentiel vouloir éliminer le futur président de la république loolu ay caaxaan la. si Ousmane Sonko éliminé dina am plan B. Ah, amuñu plan B Ousmane Sonko mooy suñu candidat te investir nañ ko ba pare. vous le savez non pas de plan B Ousmane Sonko déjà investi. d'accord merci beaucoup Merci, hein, ah. euh, honorable.